nga xaw si daal tuuti daal nag xam nga daal nag mais daal loo sol nii. dalu dalu. waaw sëñ si. dalu ci loo de. nay gisoo. dàll bu jaaree ci noonu ci ndam rek laa toog ci ndam ndam. Ah, dàll sa ndakaaru neex na nag ñu ngi raay sa bopp bi noonu. waaw ah, ci ndam laa toog de. ah, ah ñu sa leel bi noonu de loolu de baax na ci réew mi loolu nga xam ne Modou bu nekk am na ko Modou Modou yëpp ko bëgg de. dafa gaañ maa ngi ziar Tafa Kañ maa ngi koy bu baax. ah Tafa Kañ yi def na leen fu ñu nekk yéen waa Thiaroye Géej. دول دول دول دول في دول دي مو درا في دول لي في دول دي ما دي سندم لا دو سندم لنگ يا غليك اه واي دوا جيغا خمبا داو نيو نيو جيل نيو نيو جيل نيو جيل اواز بي ياي ديك كان نجيل اواز بي دوا غا نيو جيل نيو جيل اواز نيو بري ما دان كا موم سما واي لا كوا مي دما كوي دان ah noonu nga toogee day sab jeeg di raay sab sab leel moom wax dëgg yàlla ku ne neexul da ngaa gëj ci réew mi. maa ngi yore ko la émission yi. <laughs> man daal li sa problème. ça va Dallou. waaw. mais Dallou ci nekk fan la ñu toll gars yi cooli bëri na de. cooli bëri de maa ngi lay bu baax parce que démb si Pape Sall laa jógee nii léegi nii buntu Pikine. waaw. balaa jugee ne chaque jour dañuy gisante foofu man ak moom. waaw. damay def foofu def naa ko ba pare. li ngay def nga ko pare. wur naa fa soobu yàgg. daal ndax xam ngeen. naa la de de. ndaayaan laa jugee nii ndaayaan laa jugee nii. ah daal mbaa sa vacances neex rek nga yaakaar ne dëkk bi du jeex. ndaayaan laa jugee nii xam nga wax ji lan mooy ñun ñun jël nañ. signé nan hmm? na jël signé na jël signé na jël signé e Modou kin Modou ma lay ziar bu baax di ziar eh, di di ziar Sénégal gi mais xam nga la mooy problème bi boy ay nan nga jël ñu def ko ci 4 avril bi ñëw ni mais nak mën ngeena daan boo combat bi li way yow way yow ko daal rëg am na qualité yu mëna daan boo ñaa ndax boo ñaa day loolu sama jabar mooy tontu waxale ko. déedéet boo bu ko jabar. yow war na rek non dama nekk nag mais waxal. Eh, booy ñaare moom rëy rëy toppat. voilà yéen noonu ci wetam laa tudd lu ma neex laay wax. booy ñaare rëy de. ah. <laughs> ma ne. rëy rëy moo man. dégg nga dégg nga soxna si. waaye. nga ne jën ngeen lekk daa neex tey. xam nga émission yi man loo ci xamul xam nga lu ma toog a coof. xam nga coof. coof coof ba ma ñëwee ba coof laay def. alhamdulilah. li ma ci leen jël ni grâce lay. hey boo ñaaw mosaan a bëgg a jënd mooy ñëw caare yi ñu may ko yabay yabay yabay yabay nga xam ne ñun soxlaaw na ko mu yóbbu mu yóbbu mu yóbbu mu yóbbu Pikine. yaa ngi dégg combat bi taxawee tabaakaay ji nee na bu combat bi taxawee. looy naqari ah. lépp ci moom lay jóge tawa sama waay la sama waay la sama combat bi du yàq sama diggante man ak moom nag mais dinaa ko def dinaa def affaire sew de hmm? woy dina dinaa def yu sew yóbbu ko ci ci ci géej ci ci maam jare fële tuural ka yaa ngi dégg waaw ndakaaru du fi waay andi toj ndax sunu maam yi nekk fii maam jare maam geesu yaa ngi dégg yaa ngi yaa ngi dégg yaa ngi dégg Ska maam Kumba Lamba ñoom ñëpp maam Kumba Bang ji jinne jinne nekk fo yi nekk fooy séddama leen ndar fooy jaar. <laughs> mais daal dafa ah? mel ni combat bi rek dañ ko yenu. combat yenu ñu de ñun jël nañ signé ñoom nañ jël signé. ñoom waxagul lu leer de. ñoom bu ñu jëlee signé lan moo leen ci a fekk ñoom. Eh, il bala nu gaa fi mu toll nii xamul la bi nee naa wax naa ñoom fi mu toll bëgg. ñu ngi ci àll bi di lijjanti di lijjanti combat bi. waa kër Boy Niang ñu ngi ci àll bi di ko lijjanti. war naa ko barki Nabel Moussa lal bi ma tëdd nii xoolal war naa ko rek nee naa ko mu ne ma ne gis nga ñii nii dañ laa bëgg lëndëm dañ laa bëgg lëndëmal nax la yaa ngi dégg mais ñoom ñu ngi ci. dafa dafa gàññi oto bi la jël essence àll dafa gàññi essence lay yor. yaa ngi dégg topp dëkk fu ne mu dugg fa di xoolee sëriñ quoi. su ma la déggee la bëgg a rëdd sëriñ daanu ko. non non sëriñ ñi muy daan ñëpp daanawu leen sëriñ doole leen daane ak bëre. bitéel yi pour bitéel yi muy andi pour naaj rek xam nga daa defar aaru làmba ji quoi mais ay ay xott bi combat combat bi nii nii nii waa Pikine dañ parce que derby Pikine Thiaroye dafa waral lii ko xarim jaay duggoon na fa waaw xarim jaay duggoon na fa daan njaga job waaw daan balabé deux fois waaw may dégg waaw xarim duggoon na fa daan fa trois ñetti tanor di bërek ama seen ama seen daal signalé ne bët bi day métti amagon amagon am nañ fa quatre pikit la ma sam hein pikit la ma sam biir caare yow mosu waa Pikine mosu noo am ndam caare. waay déet waay. barki rasulaay du man la du man la bi ma tëddalee parce que man la bi ma tëddalee ñi ñu nekk ñaata vingt sept cent centimètres. waaw. dafa am doole soxna si nekk sama ginnaaw toog nii. yaa ngi dégg. waaw ma yor sama peewale nekk quoi. waaw léegi. waxoon ma kay wax yi neex dama dama leen wax ne waa mosu noo am ndam caare. kon su ma la déggee da nga bëgg wax ne waa Caaroy ñoom mun waa Pikine. waa Pikine mosul am ndam Caaroy. wax ma wax ma benn combat bu ñu fi mos a ma de. ah. loolu jaaxal na ma de. xel mu dal laa lekk maa ngi nekk sama sama pérus. amoo ci benn stress benn. Eh, ay waay tabaakaay ji dalaa seen rek génn dalaa seen rek daw. maa ngi Gine Modou envoyé na ma ko yaa ngi dégg maa ngi déglu Tapha Tine maa ngi dégg maa ngi déglu Tapha Ganji di wax naan combat wi nii combat mais xam nga mooy problème bi suba dañ dem CNG jëlee avancé loolu mooy coono quoi. yow bis boo daal bis boo déggee ñu ne Tapha Tapha Ganji diggante boo ñaari nit taxaw na lan nga may wax bu baax. waaw ah, dama dama damay damay wax beneen victoire am rek. dégg nga. combat boo déggee taxaw na rek mooy quatorze victoire bu ndeysaan daal dégg nga këram jaaxaan jegam di laal di bi yaa ngi laal leel bu yàgg rek ay fanam waaw c'est boo gisee ñoom boo gisee ñoom bëggu ñoo bëggu ñoo jël avance bi waaw ay biran yaay da wax ku ne wax si ñoom ñu xaw tiit yaa ngi dégg waaw waaye beneen cooral de xale ngay bëreel de hmm? mu ndaw lay bëri su la déggee da nga bëgg a ki nga xam ne nii mooy booy ñaa am sens ci rëg rëg non non booy rëg rëg ko ëpp lépp rëg rëg ko ëpp doole moo ëpp sañ-sañ ci làmb leen dara la si yaakaar gaa non non dama yaakaar ne xamoon xam nga la mi mi la daan bu fat sa daan rëg sa daan rëg sa daan rëg sa daan rëg man loolu loolu ba doon nañu mënoon nañu kaa génne seen seen xel mi faram. ah ndax lan. bu yeboo sax Sénégal bu yeboo ñaari kii laa fa benn bi trois appui la benn bi ñu yenu Sadio ba tàlla ko dóor ko. drapeau eh drapeau baa fi nañ ñëw jël si man maa ngi fi de ñëw nañ ñëw jël si drapeau bi. drapeau bi anamu. mi dañ ñëw jël dañ ñëw dañ eh, ñëw jël si dañ ñëw dañ ñëw. man nag caare géej nag bu fekkee ne dem ngeen bay yëpp booy ñaa nag am na lu ma tiit nag. non booy ñaa daa def si làmb lu rëdd deful xoolal booy ñaa ñim daan. mais booy ñaa du moromu rëdd rëdd booy ñaa dafa daan tàncees. non du moromu du mais booy ñaa mais dama ne la booy ñaa daan Balla Gaye numéro 2. kooku ndaanaan ci làmb dañ ko nangu li ko yàlla def. non ña Sa Thiès ak Balla Gaye si genn ngoon moom dama mbëri eh mbëri eh eh mbëri dégg daal yëpp ci ci ci ci ci yëpp am nañ ay guddi waa jaaree leen njëkk daal. muy karakan. minute laa ko kan nga waxal yow. ba pare Balla Gaye numéro 2. waaw ci minute laa ko daan ba pare jox ko daal. dégguma dégguma li daal lu gën a Balla Gaye dama ne Balla Gaye numéro si une minute laa ko une minute. une minute nga ko daan. une minute dama daw sol ko dëbb ko naa muy bañ ma usé ko wër ko ndox mu teg loxo bi ma fel loxo bi jël sama a teg ko mu tëdd ma pare jox isaabu yi. waaw. ma pare jox ko isaabu yi isaabu yi wëndal ko yaa ngi dégg ko. jàpp si suuf. yaa ngi dégg stade Iba Mar stade Iba waaw. esa bu jàpp sa ngëmbal nag kenn nag koy daan yaa ngi dégg. waaw. adversaire yi adversaire yi booy ñaar daan ñëpp ñëpp koo ci boole ak Reug Reug barki Mouhamed du ko dégg moom deux minutes. Hmm? ah mais da ngay wax ak benn moo xamante ne international la moom kese boo fi am dix millions de bii bëri. kon su ma la déggee. yaa ngi Reug Reug moo raw moo raw Reug Reug Reug raw ndaanaan yëpp ci làmb lépp ci

Bere bere bere bëri simple bi de quatre quatre cent combat am ci trois défaite nan ñoom ñoom nan nan wàcc si arène bi xarab xoolal gi xoolal xoolal xoolal gi xoolal gi ah kii bu nekk tam waaw lu bi dafa yab nit ñi mu naan Balla Gaye Sa Thiès yëpp rek mën na leen daal ci genn bu ñu ko mën daal rek dara dara Balla Gaye Sa Thiès dara ko daal quatre appuis nga naan Sa Thiès daanu. bu dee projet bu baax sa du ko am. ba muy rëy muy rëy laa may. amul bu rëy la yi sa nga war a bàyyi. numéro deux màgget naa. wala ngay numéro deux une minute naa. xam nga yow lan mooy sa problème yow lan mooy sa problème yow. yow lan mooy sa problème. dafa rëdd sa bi. déglu xam nga lan mooy problème. Reug Reug Reug li ngeen yaakaar li ngeen yaakaar moom du ko Reug Reug booy ñaa moo ko waxoon nga wax lii waxoon nga contre Boy Niang contre Boy Niang la nga gis ba tey jii. nga di contre. sa mbër ak gaynde ko màgg la gaynde ko màgg. sa mbër gaynde ko màgg li may wax teg ne képp neex la mu naqar la. rëg nag boo fi génnee Elton Bombardier Elton Bombardier ak rëg nag bu bu bu bu dañuy booy ñaaw lekk Bombardier daan na Balla na daan bu ñëw rëg daan ko si à la manière Sa Thiès Sa Thiès Sa Thiès mi leen daan booy ñaaw moo ko daan dalal nga am Sa Thiès Sa Thiès Sa na booy bu dëgg dur ko suuf yóbbu andi drapeau fii nga xam ne ay Sa Thiès ak bu ngeen amee drapeau te seen jox victoire victoire bi victoire bi daa daa daa yow ay moyen nga na ma sëñ ragal moo tax ragal moo tax ñuy discuter yéen contrat ngeen dem di jëli contrat makan benn lan moo tax xaaru leen xaaru leen waa ak albura tv boñaam boñaam boñaam moom mën rëg rëg naka jël eh, ay wax bari jaru ko eh, góomale bu jëlee rëg rëg laa booy bu jëlee rëg rëg weer rëg rëg rëg mënul xeex mënul doole ci salaam <laughs> yow sa mbër doole la ñàkkale doole doole. sama mbër bu ñëwaatee nga xam ne sama mbër ñëwaat na Balla Gaye c'est le lion de Guédiawaye de tous les temps mbër mi tàkk ngeen Balla Gaye moo la man Balla ba ma maase daa ñuulal. barka rasulillahi barka ay Amet maa ba Amet kii sama gaayan la kii jantal gaayan Amet doomu ndey rëg-rëg nii Amet doomu caareñ yaa ngi yow yow boobu léegi yaa wax amul seen benn doomu dëkk bu dugg dama lay benn affaire ne nag gis nga ndakaaru bi lébu ka moom yaa may dégg gis ka ndakaaru nan la ko lébu dégg ma yéen roi des arènes mos ko dugg e e e e e e roi des arts arènes mos a dugg caaroy daal boobu yaa may dégg yaa may dégg li ma la yaa may dégg yaa may dégg daal boobu yaa may dégg li ma la may roi des arènes mos a dugg caaroy waaye sa dama sa sa roi vingt quatre heures bi dama kaa soxla. roi vingt quatre heures. ah. yow roi boo xam ne Guédiawaye vingt quatre heures la fa def damaa soxla sa roi yi. li may waxatee moom mooy. yaa may dégg si kenn. non non non non mais roi yow sa roi yi kan moo bëgg. roi vingt quatre heures. mais sa daanu laa daan kan nga daan yikini mi def 15 ans de carrière kenn mës ko daan bi ngay daan yikini yikini bi nga bàlle ngay daan tànke doon mi tànkay booba yàqu noom yàgg xam nga yow xam nga yow lan mooy sa problème yow maanaam yow maanaam yow yow da ngaa mënul dara ci Balla Gaye Balla Gaye depuis 2012 ba léegi depuis 2012 ba léegi benn victoire la fanam gënal ci laaj bi waay nga may toog fi naa man nangam sàngam fii dëkk fii lamba ji lambay lébu yee fi man lébu lébu yee man. xam nga ne boo tax fii di wax sa lii ngay wax fii nga fi nga nekk moo neex ñu lay raay ngay lekk sa mburu mu neex jaaxaan di am looy wax naan ay Balla Gaye 2010 ba léegi amul kii quoi. ba mu ko jë eh maanaam ba mu ko jëyee gis jabar ji yaa ah, ki néeg bi rek laa koy gis lu mat te ans yi si néeg rek laa koy gis. andi génneel sa jabar. yi nga wala wala wala. xooli xoolal. du ma la sax man du ma la xool man du ma la xool. mais boo doon léegi ah mënoo génne néeg bi boo daan taa. man daal man du ma la xool. dama la kaw dama la dama la kaw ma xool ndax yow nekkoo kaso wala déet. Dallu Dallu jërëjëf jërëjëf Dallu. jërëjëf. waaw maa ngi ziar ñëpp ah maa ngi tëdd quoi soxna si maa ngi kaas. non daal rëy na ko tey. maa ngi jooy sax ndax daal barke Seydina Muhammad. aca amateur daf leen demande ñu ñëw ci waxtaan wi waaw daf leen demande ñu ñëw ci waxtaan wi.